ku la fa diiwaan fa pey bi Yàlla ñëpp nga daan gi la mëneesu fi fel samp sëriñ Baara. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides sëriñ Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss sëriñ Moustapha Matiley xalifa sëriñ Baara sëriñ Boulaye Mbacké xalifa sëriñ Balla Thioro sëriñ Khadim Mbacké xalifa sëriñ Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Cissas ren ñu tuddee ko sëriñ Cheikh ak sëriñ Assane Salam Serigne Abdoul Khabir Massamba Mbacké Serigne Saliou Touré Mame Bou Mohamed Kounta Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Serigne Cheikh Mbacké Modou Fat Khari Serigne Bassirou Mbacké Mor Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng Cheikh Mouhidine Samba Diallo magistrat Serigne Ahmadou Ba président Iba Kole Bao Serigne Amar Birane Thiam Serigne Bara Amar Djemoul Alhaji Alé Ndiaye Alhaji Dame Diop Mansour Alhaji Ndiol Diané Alhaji Serigne Bamba Sadi Soxna Mame Faty Mbacké Maremodo Soxna Tahiratou Diakhaté Adja Amilo Gueye Soxna Fall soxna Ndeye Guèye Adja Ndeye Fatou Seck soxna Bousso Ngom Adja Mame Fama Diop soxna Momi Dali Guèye day soxna Mbacke Moustapha Massamba soxna Endo ak yeneen i kilifa bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacke samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6 ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu buuru julit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaawu raaluhu ñeen na sëriñ baara